yi ñu am mbégte kooku ngeen gis muy dugg si muy Balla Gaye moo dugg si Balla Gaye moo waroon a mujjee dugg si Yékini waroon a jëkk a dugg si waaye xam ngeen ni mi ngi ci temps bi waaye l'essentiel mooy le lutteur mu ñëw ci waxtu wi nga xam ne moom lañ ko soxlaa te yaakaar naa ni Balla Gaye ñëw na ci waxtu wi nga xamante ne ni moom la ñu soxlaa un lutteur mu di lamb ju mag dina ñëw léegi ci palmarès wax naa la li fi yàgg am ci ay xew-xew li fi yàgg am ci lamb te leneen it am na lu dul lamb ndax fii nga seetaane lii kamat alaaji Papa Dieng fii fi nga seetaane yàpp jug alaaji Papa Dieng fii fi nga seetaane la gendarmerie de Dakar Louis Goré Demba Coy alaaji Papa Dieng bokk nga ci ñi nga xam ne ñoo jëkk football ci stade Demba Diop jëkk fee dugal bii alaaji Papa Dieng lamba ngi Demba Diop amaat na gan Demba Diop amaat na bis bis bu nekk bis lay wuutu waaye yaakaar naa ne bis a boo xamante ne nii mag bu war a dox diggante Yékini ak Balla Gaye numéro 2. ah mbokk yi Balla Gaye ngi noonu mi ngi bind la en Casamance bind ci xale baa ngi noonu xale Guédiawaye le lion de la banlieue tey la bis bi le 22 avril mbokk yi li ñu doon foog lépp tey jii am wala ñëwee na forme cawarte ji feeñ gaa ñi war nañ ko supporter yi bég ñun gis nañu seen support seen mbër. xamee du ñu nelaw ndax moom ña nga xamante ni du ñu añ ndax moom waaye nag formule yi di waaj Balla moom yaakaar naa ni melokaan gi mu indi mus koo indi ci bëri melokaan gi mu indi mus koo indi ci bëri waaye li ma ci jaaxal mooy day jéem rek sëgg mu ci kaw rek lay xool léegi too sax ca kaw lay sax foo ko fekk dafa si nee na jóg waaye géwal a am solo bu dee góor géwal am na ci solo lool les champion bu mel ni moom géwal am na ci solo la paix en Casamance yal na yàlla def jàmm Casamance yal yàlla def jàmm Casamance géwal yaa ngi noonu ñu koy jiin lu mu nar ma ngay ree nee na gars yi taxaw leen ma ñëw ah ndeysaan Robert koy ñaanal Robert Diouf ilaha illallah Robert ak Boy Ndiaye toog fecc na lii de xanaa mooy fecc bu bees bi muy wax jox ma sama junni xale bii de jaaxal na ma mbër yi léegi ay jox ma sama junni bu ne ngay gis balaa ngi noonu nee na sayee xale yi seen xel dal